parce que mbër la bu comme tout le monde ah mbër yi nga xam ne yii euh, xëy na am na ñu bari ñoo xam ne tey jii xale yi xale jigéen yi xale yu ndaw yi kii sax koo wax ne na mbër la moo xam ne bii mbër muy arrière di daw la kenn warut a bëreeg moom sax ñooñu dañu ko yéen rek pour mu bëreeg moom parce que itam mbër yëpp am nañu combat ba mu des moom. ñëpp am nañu combat ah kan ko fa ko jël kenn di ko jël. mais Ama Baldé dafa waxoon ni ñoom ñaar ay mbokk lañ. mbokk judd loolu mosu ko wax. Hmm. Jules de ko doon wax loolu la doon bu gëmloo Jules Baldé Jules Baldé gëmu xam na ne sax loolu mu wax gëmu ko Jules Baldé xam na ne li la de Guiers di wax gëmu ko hmm. ah no bu ma bu ko gëmoon bi seen waajur wu góor wàññeekoo muy fàllaay mu jaale si jaale si tegu fa sax tànkam ñëw fa kenn gisu ko fa yaa ko fa gis na la na la rajo sociaux yi wala télé ñu nga fa woon nañ la woon fu mu ñëwee jaale si wala nga dem ca kër ga yaay amaa nga ci biir kër ga mu laaj ko ndax Lac de naa jaale si fii la wala déet koo bokkal di nga deele wala nga am xewu jàmm te du fa ñëw ama muy takk jabar di ngénte moom taxawu fa koo bokkal dina def noonu. Ama Baldé kan la bàyyi ci làmb ji baaxul. waa kër Double Less ñi Double Less jur ak waa kër ak Pikine gi mu dëkk juddoo fa. Hmm. waaw. ku dul ñooñu day bëreeg ku dul ñoom day bëreeg yow. géejewaay ku fa mën a dëkk na préparé te xam ne bu ko làmb. waa kër Double Less day bëreeg yow parce que bëri na fa ak guy ga ñaata yoon ñaari yoon. ñaari guy gi fu mu dëkk. yooyu moom lañ kii noonu rek nañu bàyyi yooyu Double Less daal li mu jur waa ak doomi Pikine yi mu bokk juddandoo la dul bëre promoteur mu ngi leen di démarché pour Ama Baldé la dëgg ah waaw man de maa ngi ma ubbi naa samay buntu daal. xeebu ma kenn defuma ci kenn ku ci ñëw ma wax ak yow bu ñu juboo ci kàttanu yow yow mii taxaw nii sax boo yoroon léegi avance bu ñu juboo waxtaanee léegi nga am avance ba ma joxe ba. <laughs> man moom bu ma ah, waaw ah, ah non ñoo ñi koy fay ay jaam la ñi comme ñun rek maa yow kenn la ci yem rek te suñu borom tabax li mu yor jaam ñi pour jaam ñi rek la. soxlawu ko dara boo xëyee ba ngoon ñaanoo ko sax mu mere la. Hmm. dara jomb la dara ñu. Hmm. leer la gis ni Ama Baldé noonu la mën a góorgóorloo ba rek Lac de Guiers 2 ba daan. non mu Lac de Guiers mooy war a góorgóorlu bu combat ba na góorgóorlu. moom Lac de Guiers. waaw lan lay góorgóorlu yan yàq la koy. taxaw góorgóorlu bëre bu taxawee na góorgóorlu li góor ñi def. góorgóorlu bu nga wane dara lu lu fi góor. na góorgóorlu ku mu bëreel wane na njàmbaaram. wane na fulla ak xarañte ba daan. arrière kay ba balu ginnaaw kay ci xare boo commencé am ci xare doo amoo manoore balu ginnaaw du du du ndam te kuy daw da ngay yem balu ginnaaw. Hmm. waaw. Lac de Guiers 2 Ama Baldé bu neex la bu amateur yi soxla. waaw combat jànq la ah. comme yeneen combat yi parce que combat la boo xam ne mosuñoo bëri ñoom ñaar te wax ju ne inventé nañu ko te c'est faux ala <laughs> kulli dañoo war a bëree. dañoo bëre bëre li wóor mooy euh, jàpp naa sax bu ca baa ba dana dana ni muy bëreeg Ama ak ni muy bëreeg ñeneen ñi xañ na du dem du nekk benn. lu tax du leen wutale. ah dama ragal ne xañ na nit ki mënoo mënoo ngay wax li ngay wax ba pare ak say baat ña ci stade bi Ama Baldé taxaw mosuñu laa wax dara lu teggi néew loo xam ne lii kenn waru ko wax nga taxaw di leen wax di leen dëkkaloo ay baat yoo xam ne teguwul fenn am na benn xarit xañ na. boo xam ne bii nee nañu Ibou Faye la xaw ma seen wax na ko Ibou Faye wax na ko ne ay xarit lañu mais bu ñu combat suñu combat moom bu taxawee may nañu ko Ibou Faye moom mu nekk ci ñu libéré ko mu dem ci moom. Ibou Faye lan day xaritu Jules Baldé la rek bokk ci suñu écrit sax mais. xaritu Jules du du non kii rek courtier yooyu la courtier sëriñ la xëy na ndax nee na day jàpp di xëccoo Ibou Faye moom. déedéet déedéet déedéet man kay xëccoo ma parce que dafay xëccoo day fekk nga xam dara wala dara xëccoo ma ak moom dara. amul lenn lu may xëccoo lan moo ko mën a daal su ngeen ko jël Lac de Guiers daal duma rek dóor rek comme ay dóor la ragal boo dóoree boo xàccee waaw boo xàccee mu tàll loxo yi kaw arrière doo génn pesal rek pesat xam nga mag moom boo jikko jëpp nga ca loxo yi lex ba dóoral pes rek ah. <laughs> kenn du ko dóor ku rek pes rek lañ koy def mu taxaw ah. <laughs> itam actuellement nii xam naa ni ñu bëree bëri bëgg la ñu xam Ama Baldé ak Lac de Guiers fu contrat bi toll parce que Lac génn na def sorti barki démb hmm. nee Ama Balde comme nangu na. nañ laaj Zil bu Zil Balde nangoo moom pare na pour jël avance léegi dama bëgg a xam ba xam yéen staff bi toog ngeen réunion waxtaan ne pare nañ pour jël Lac de Guiers. Ama Balde bu bëree du yóbbu kenn kër fa lay lay yóbbu moom Lac de Guiers mës a bëree ba jine sul Balde saako ceeb a ngi nii yooyu mu wax na ko teg fële. Zil hmm. Balde du bàyyam mës a yorul dara Zil Balde du ko ñaan du ko du ko may. Zilba du dem ci moom di ko ñaan du ko may na bàyyi yooyu muy wax noonu bu nangoog mu nangut masa combat mi am yëpp benn bu ne ci mu ci tàggu Zilba dana ko tax dama bëgg a bëre wala bëréewu ma amul day wax lu ko neex na bàyyi sa waxam yooyu muy def su bëggul bëri ñun bëgguñoo bëree moom waaye na ko leer na adversaire am la waaw muy tey muy suba cent ans quatre dimanche yàgg naa ko la bu bëree moom dañoo war a bëre su bëree wul moom dañoo war a bëre bu mu leer bokkuñoo moom dara xaritoo ñoom kon xiir bi mënul ñàkk bokk ci bokk bokk mafia bi waaw déedéet ci bokkul xiir gi dal la ah non gi sax dama ko gonoré woon xorom ko di ko xaare Modou Lo daw na dem ñemewul tàppet na ragal la ah moom na ñemee ne nag moom gaynde dégg naa sax ñu ne moom gaynde la bu ñëwee nag moom ñu caw ko ba ah dana daw non koy mooy jàmbaar ji daw ndax Modou Lo koy dàq bés bu ne kooku laa waroon a bëreel gaynde gi koy dàq laa bëggoon a xamal ko ne yow kii la rey bukki ba ko gaynde <laughs> ba muy fontoo gaynde hmm. takk ndomboy gaynde fu mu takk mu digg daf du ko fondoo gaynde daa génn rey bukki bu ko fopp tër ko ci buntu kër gi ne ko kaay jël ndawal gi mu génn bukki bu ko fuuf hmm. mu xam ne ki rey bii bukki bii mën na ma rey bukki mu ne ko nijaay gaynde loo wax loolu mu noonu la demee hmm. waaw moom mi koy ki koy dàq ñemwu ko laa bëggoon a ren li ci boppam mu gën a bëgg si boobu. baax naa ci yow mbërëg bu baax a baax di ñaan suñu borom tabaraka la may leen jàmm ak salaam di ñaan nag rek ah journée yi ci des ci làmb làmb muy làmb ju neex ñu démb ñoo ngi woon arène national ci suñu teg ak moo gett ak yi mu tëggoon ah nañ leen ko xajal rek quoi parce que jàpp naa ne sax làmb yi bu ñu ko xajalee ah gars yi mën nañoo dem ba tekki dara ah, parce que gis nga bugg yàggu rek def na fu benn ay ah, au niveau de kii gars yi bari bëri ci sénégalais yu bari def ci seen gis ci seen bopp. dañ ko jàppale bu baax. yéen itam ñu bàyyi leen nag ngeen di def seen liggéey. démb nañ presse bi ndax woo nañu ci open presse ak ndog yu yëpp presse bi dem jàpp ci liggéey bi dara desul lu làmb yi ñu ne ñu da ngeen di bàyyi trois jours après combat bi nga jàll maanaam vidéo bu kat yi vidéo bu dem ba neexatul askan wi. ngeen doog koo dugal yéen site internet. waaw loolu loolu lu ñu waxtaan ak moom la rek parce que xel boo xam ne ku mën a déglu nit la xëy na am na écho yu jëkk dugg ci moom ba mu def loolu vraiment mais bu fekkoon ne rek dañu ko teel a yëg ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ak liggéey bi di ay ménage nga xam ne dañu koo jàppale pour journée bi réussir gis nga nit ñi toog nañ lu yàgg te ñëwul waaye nag kenn ku ne ci sa xol ba ngay def rek ñu ñaanal ko ne nga jàppale ko bu baax a baax làmb ji abul débordement tuuti làmb ci toj mais nag xolam bu rafet moo tax sax làmb ci tojul ndax foofu ñu foofu xeex boo am ci digg gi enceinte ba ba alkaat yi def beneen barrage ci diggante bi mënoon naa làmb waaye moom xolam moo rafet ba loolu yàggal lawal mu loolu yegg ci jàmm dañ ko ñaan bu baax suñu borom moom itam jàppale ko ba bu ëllëg nag yooyu nga xam ne moom la doon def ak yéen noonu ba démb loolu mujj noonu vraiment mu xam ne yéen ak moom boo nee na bokk liggéey bi parce que làmb dafa laaj ak média te moom yéen comme yéen a yore média nañ bokk ak yéen a àndandoo ak liggéeyandoo ñoom man bi bu ma ci laajee danaa ko ne la leen di bàyyi ngeen di liggéeyandoo que loolu bokk na ci liy